salum la xamna ni buum ci meuna nek rek diko tele mais dio bob mom sénégalais yëpp dañ ko yag xal en tout cas dinañu yëngal yëngal yëngal yëngal mais yéen a ngi fàtte reggae bi dé reggae bi mais damay dugg ci biir trio trio mbalax rap reggae man reggae man la waaw style vestimentaire bi loolu moom nag Zeyna euh, sama mbokkum taalibe bi maa ngi lay siyaare bu baax sama sœur loolu nag moom euh, day dépendre ci ci ci ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk loolu kon bi may dem Zénith daa am ku ma ko dénk mu ne ma nii ngay soloo lii ngay def je pense que nii bu ma eggaatee fii war a defaat benn Zénith damay jëlaat lépp tegaat ko ci loxoom ndaxte xam ne bis bu nekk li ñuy laaj muy grand Assane Lo

ñi tewal téwal nañ fa ñi nga xamné mënu ñu won ñew mais nak bi comme que Sénégal la day gëna neex invité na artiste yépp ñi ma ci andalon yépp te kenn ku nekk dina la wo ñu wat tok waxtaan parce que ñom seen bis la ndaxte ku ci xewle man tamit damay bayyi sama yitte yépp man non lay def ak artiste yi barki demb gis nga ma fi ci Pama djébi malgré bi may ñew lay jeex mais ñew na egsi ba mu gis ma parce que man dañu may ñewal motax artiste bu xewle demal donc on a ngi lancé waat appel sama mbokk artiste parce que dafa am ay surprise qui nekk ci ginnaaw bëgguma ci mais sama mbokk artiste yëpp invité na le 5 octobre nous allons ñu raxassat Zénith de Paris fii ci Esplanade Grand Théâtre troisième question je pense amna na interpellé na pour un Grand Théâtre Oui, je pense que innovation a déjà commencé euh, comme li may wax Grand Théâtre le ci dynamique bu bi jamono bi ni dañuy dañuy impliqué wu ci production artistique di wax ni que ce événement bi ñuy def le 5 pour ñun nekkul simple concert nekkul jog rek dem Zénith dem jouer ñëwaat on veut montrer au reste du monde entier que li ñuy def c'est un spectacle sans et lumière li nga xam ne tey jii nii artiste bi bu ñëwee taxaw rek même bu joué wul sax jaay neen événement bi jaay neen spectacle bi waxatuma nag tey lu mel ni Sidi Diop daal di woo suñu kilifay kër gi ne leen da di xaar duo ci kaw scène donc nekkatul loo xam ne tey grand théâtre da ciy dem à demi mesure en fait defe naa événement bii nii dina doon loo xam ne nit mosu koo gis Sénégal incha allah ci kàttanam duñ fi dévoiler lépp ñi ñëwul kay lay lay yërëm comme niko Sidi waxe ñu yéex jënd seen billet ñoo ñoo nar ñak chance mais mën nañ am chance ak Indigo setan ko par le biais du pay per merci beaucoup. surtout keur Waly dina doon lo xam bu rafet ci yéen bu rafet ci man bu rafet ci doomu aadama bi koy setan dana cërëm mo ni toll ci bés bi suba inshallah xara sax ma demaat këram pour invité ko ci bés bi. dégg nga su dee xaaraatal ma demaat ci sama papa Youssou ni mu demee xam a def la ma ko parce question bi mooy fii di jooy waaw zénith la ñu ma gis ma jooy te nag nit bu nekk nit nga man duma nit bu victimisé kooku du Sidi Diop ma doon victimisé bi ñaata dóor ma dégg ci Sidi te mosuma woo benn presse ne la kaay ma wax te xam naa lu bari nag lu ma war wax mais kooku du ma du ma victimisé man alali Serigne Touba laa moom moo victimisé mhm. duma bi ma jooree dafa fekk ni sama xol moo fi def mooy dama taxaw yenn saa ci kaw seen bi gis Matar Diop sama teel xol ma gis Petit Ka mu tuur xew xam naa ne image boobu ngay wax ma jooy parce que tamit lim ma waxoon daf ma ko defal bi may signé daf ma ne Sidi dinaa la yóbbu Zénith incha allah te bi may doog a dugg bi may doog a dugg ci Zénith bi li tax mu metti mu jooy moom ma jooy quoi que plus biir ñi ko moom ni Sidi dina gis a ferme Zénith bariwul sax que dañoo nekk ci benn dëkk boo xam ne booy tëgg il ñu ñaanal la yàlla na fees mais da ngay gis sax kula la woo lim lay njëkk laaj ba fees na yéen ruq yi nu mel mhm. loolu lépp ay poids la woon mhm. donc ma ànd ak doomi kor bu may yëpp ñu bari di ko woo naan ko da nga saraxe booy bi parce que c'était pas le moment ko yëpp reposer mhm. mu nekk benn poids ci moom ñu bari di ma woo lan moo tax nga d'accord lii mais dañu la saraxe yow dix mille place foo koy feesale ci bitti ay nah, dugg dafa dugg est-ce que dama leen ay doog ba pare doog pour man doog Ousmane man leen fii benn yàlla mooy maye benn yàlla la ñëpp di ñaan nañu ko ñaan te toog seetaan ko ba bis baa bu ñu may cinquante personnes ñu waral lii ñu te dem ñibbi mais nag ba ma ñëwee sama producteur woo ma ci rukk xamal ma ni biir yi jeex ma xam ne kii ma waxoon def na ko du ma jooylu doomi ko mënu ma ko am ay amul mënu ma ko fu mu demul bu te dafa waroo ko dëkk li ko génne yokkut damaa jooy parce que man mënu laa mel mm. man bu ma fekkee woon sax fu ñuy néewalee doole nit bu ma ko mën a faj damay jooy bu ma jotee woon nag nit léegi nga woo ñu ne ñu waxal sa version bu ma waxee mën naa jooy parce que man noonu laa mel ñoom la ma suñu borom bindee mm. sama yaay daf ma koy xasee ñu si la xoolal jigéen loolu man noonu laa mel mais nag tant à victimisé wu mm-hmm. kooku du man ndax suñu borom tegu ma natt booy victimisé maa ngi sant yàlla bu baax mm-hmm. xale laa maa ngi liggéey koppar maa ngi dugg bu baax a baax maa sant yàlla bu baax baax a baax jërëjëf le mënul yomb mënul yomb de dina metti dina yàgg te dina tàng xam nga ku ma ku yéex jënd billet kooku rek laa yërëm mës ngaa gis directeuru grand théâtre buy buy jaabira nga ko gis directeur yi fi jaar yëpp <laughs> fa lay xewe fofu lay xewe inshallah donc ma ngi nuyuwaat presse bi bu baax a baax a baax a baax a baax ñoom li tax ma leen di kontaanee dañu nekk ay nit yoo xam ni du ñu dem sans ñoom ñoom it du dem sans ñun te dañuy ñëw vraiment di jàpp ci affaire yi bu baax a baax a baax a baax encore une fois maa ngi leen di gërëmaat ci turu Subatel ci turu Indigo ci turu waa Grand Théâtre bi yëpp je vous remercie encore une fois merci.